xam nga li ñuy wax la la jamonoy jaay jaam nit ñi ñoo ëpp lu ñuy jaay jaam yi ko tubaab yi te loolu ñoo fi nekkat tubaab moo jógee de ñëw jël nit ki ñu ne ko na nga ñëw jaay ma sa askan te dam permet dañ ko fi wax lébu amul njëg ñun xamuñu buur xamuñu jaam on est on a tout le temps été libre nous ñu ñu moom peut-être ñu moom ba ilaa yow ni de ba ñu ko jaayee si 300 millions ba ñu dañu ko jaayee ci 300 millions ay caaxaan la lii nag ñun ministre bi ñu ngi doon ñëw ñu la maire bi signé en personne di taxal conseil yi conseil yëpp ñu ngi teew ak ñu fi nekkal lii mosuñu ko xaati lii benn conseil par yéen fal te ñu respecté waa Bargny di déglu si askan bi xam ne yaakaar ñu fenn fu mandat jeexam dañuy jël tukki dem ñu mosuñu tel lii bi ñu ko mosuñu ko signé maintenant nag li ñuy wax moo ne si kanam lépp lu ñu tey protocole bi ñu signé. protocole bi voilà. protocole baa ngi nii. Uh-huh. protocole baa ngi nii. bu ñu caam kenn du ko tekkil bari ñi. voilà kenn di ko tekkil bari ñi. bu ko bëgg a dekk la nga jàll feneen. central bi yaatu na fu mu a nekk. yaatu na fu mu mën a nekk. ñu ko jéem a xam fan fi nga teg ñetti bari ñi. askan bari ñu nee na askan bari ñu nee na. laa bëgg a dégg. voilà slogan laa bëgg a dégg. du fi du fi tàkkee. du fi tàkkee. du fi tàkkee. du fi tàkkee. du fi tàkkee. du fi tàkkee. wala ñu ngeen dégg ñëpp wax ko Pas tëggal jàng ñun ñu laaj sama yaay ñu jigéen ñi nga xam ne nee na ñoom nekk ak gis kanam taw si kanam ñu ngi bëgg a jënd ay conteneur. ñu ngi peinture di manqué bu nga jox. la may xotti tey seen kanam na ñëpp tey na ñëpp tey protocole baa ngi nii demandé par ñoo p r o t o c o l a a n a n g e a voilà voilà merci monsieur le conseiller d u b i d a k é d u b i d a k é d u b i d a k é d u b i d a k é merci Bargny merci monsieur le conseiller